nee na ngeen jote ci moom moom it mu jote ci nun nee na aajo faju nee na sëriñ bi nee na gannaaw ba mu nuyoo ba noppi nee na mi ngi nuy balu àq ci koru kori gi nu bawoo mi ngi nuy sant ci liggéey bu rafet bi nga xamee ni àndoon nañu ko am moom ci koor gi nee na muy addiyey sëriñ Tuubaa di suukar sa doon dem sëriñ bi nee na sant ci bu wér nee na wenn wàllu wu ci nekk nee na defe ne ni jotaat nanu ngërëm xamee ni ci xalifa général des mourides la bawoo ngir sëriñ bi jotal nu ko ba ñun ñàpp jot nañ ci ngërëm la yi mi ngi ñuy santit ci jaamu yàlla gii nga xamee ni nekkoon nanu ki di ko wéttali ci moom fii ci koor gi nee ci alxuraan gi ak ci njàng mi diiru koor gi nee na mi ngi na alxuraan bu rëy bu mag bii nga xamee ni ànd nanu ko moom bokk ko teewee mi ngi nuy jërëjëfal ci teewaay yi ndax nee na lii nee na lii dëkk bi na di li njabootu ci diwaanu rahmatan lil alamin nee boole wu ca ba ca ñoom seen ziyaar nee na gannaaw lii la sëriñ bi nee na ziar nag nee na dafa ci ab taalibe buy dox nee na wàll waaye it di toog ba nga ñëw màggal si barab ziyaare kër gi ziyaare sëriñ bi nee na rafet na lool te nee na it xemee lool nee nu am teen mel ni sëriñ bi nee ñu mën ci ñëw saa su ne di ci saafarawu nee ba ci saafara kon sëriñ bi nee nun day sëriñ Tuubaa defal nañu lépp sëriñ bi nee na boo ko dee seet nee na li sëriñ Xaalim aaj mii wax Moodu Maamun mii wax ko nee na ñu xew-xew yu fi jaare ci jamonoy gàmm ci ay jataay ak i waxtaan waaye sëriñ bi nee na la yéenam mu koy fàttali nee lii dam koy fàttali nee na bisi asura nee na ziyaaru yowmul asura nee na mu njëkk a toog fii nee ci penc mi ak nun nee na lii moom rekk koy fàttali nee ci gise gi ak nee na jëmm yu mu gisit te géej leen fee gis sëriñ bi nee na loolu la koy bi nee na asura nag nee nu sëkk miracle nee na luy xew ci année nit ñi di ko daje ñii du ko daje def mbooloo ngir bëgg a xam te nee na duñu xam lu leer ñii fu ne ñu gëstu fa sëriñ bi nee moom kese ngeen gis at mu ne mu wax nu la cay xew ba wax ko waa réew moom kese nee na gis loolu muy am ba sëriñ bi nee na bi muy mujj mu nee na di ca waxtaan laata nuy jëm ca ngan googee mu defoon mu sante nu jëm màggal. sëriñ bi waxoon nañu nawet bi bala muy teru. na ko seet si. mu na du ak digal leen ca balaa muy am ci jégalu yàlla ak tudd laa wala kuwata, nee na mu dund ko kon xamoon nañu ni at mi diis na gan ci dogalub saa borom kon nee na lu loo xamante bu nu ko fàttali ko nee na nu dégluwaat ko kon ngeen xam ni Bagdad gi ak bis bi Asuura rek nee la koy fàttali ba mu fa teewee mu ni ñu sëriñ bi ni ñu Asuura la baaxee wax waaye sëriñ bi nee na dafa ñëw ren ba fii ci muusante ndax nee na taalibe ndigal ndax na dafa dégg tuubaa sëriñ bi booba muy digle ñaam te moom sëriñ bi nee li mu te sëriñ Tuubaa di ko ko xamal te di ko doxale digganteem ak moom te nee na mu téye loolu ba bi mu dajee la nu ko wax nee na sëñ Xarim aj wax na ko léegi nee ay mag la fa dese nee na ne doomi Sëriñ Touba ya fa newoon di ay wasilaam di ay baayam nee na jeex na nee nii ko maamu nit waxe nee na loolu lii bi wax ca Wolofal neena mu ne ab dongo lay doon ba saa si di mat ma sax di jëfal moom Serigne Bamba ku moom Serigne Bamba nee na looloo waral lii mu wax léegi ci lu matul ay bis gis nañu fii ndawal Serigne bi mu jox ko ab liggéeyam ndax nee na jébbale jébbale sab liggéey day am murit kon loolee saa su nekk war nañuy mandatal di ko naan li nga xam ni yàlla defal nañu ko nu xam ko nee na ñu néew nag ñoo ko xam ñi koy alxuraan waxe yàlla bari na ci alquran fu muy indi ay njariñam bari na it fu muy indi ak yettaange waaye danaan lu néew ci nit ñi ñoo koy xam kon lii nga xam ni yàlla defal nañu ko nee na ñu néew ci ñun ñoo koy xam waaye nee a ñu néew ci ñun ñoo koy jariñoo sëriñ bi nee na bu nu nax suñu bopp fii ak taalube moonu fi indi da ngeen nee na danoo liggéey si nee na danoo yaakaar nee na danoo joxe suñu bopp ba mu jeex nee na kanu ko jox mu ami loxo nangu ko ba mu mat sëkk lu ci waay wàññi yaay wàññiku ànd ak loola dox di wéy kon nag sëriñ bi nee na li muy dox ak lii sunub liggéey nee na nanu ko xam saa su nekk nee na nu nekk ca loola di góorgóorlu ca loola ndax nee na loolee kat moo nuy jariñ fii ndax nee na lu waay jëme fii ci moom lu dul sëriñ Tuuba dug jaamu yàlla ndax loolu rek a fi. li fi taxaw ci wàllu lislaam lépp gis ngeen ko. nee na li fi taxaw ci wàllu lislaam lépp gis nañu ko. ci kër gi ci kër gi. gis ngeen liggéey bi. nee na gis nañu liggéey bi. ah dégg ngeen ni ma leen koy waxee. sëriñ bi nee na dégg nañu ni mu nu koy waxee. julli gi moom. nee na même boo leen koy def tey triche sax. nee na dee leen julli sax baax na bëgg na. nee na loolu yi la. kon nag kon nag. lii Modou Mamoun wax. lii Modou Mamoun wax. mu déggaat ko ci Serigne Khadim mi mu wax ko. mu déggaat ko ci waxi pas-pas la. loolu yi waxi dëgg la. nee na ku ne moo fii ñëw di jariñu. yow nga bëgg jariñu. te jëful ci. nooy nee na da ngay liggéey takku joxe sa bopp ndax nee bi da ngaa wax aslamtu nafsi ñu nangul la ko nee na moomatuloo ko kon dige bi nee na yowmal qiyaam la ca kanamu yàlla sëriñ bi wax nanu ko fii ci gàmmu gi amul daw amul làqatu benn bakkan bu na benn bakkan bu ne. daanu ko woo. daanu ko woo. woo responsable bi. nga gàddu responsabilité. nee na boo dara. boo demee doo fa fekk dara. kon saa su ne. war na nuy jëf. luy tax. fii ci àdduna. du ñu gàccaal sunu bopp. du ñu gàccaal sunu sëriñ. du ñu gàccaal sunu tariixa. serigne bi neena mu wax lu daw ba mu joge tukki wacc ersa mu ne nanu ko def na ngeen xam Touba mu ne ñu nanu xam serigne Touba may leen na ngeen bi mu ne ñu nanu dëkkal sëriñ bi nanu nekkal bi mu ne ñu nanu nekkal serigne bi bi laaj na xam-xam bu mu ne bi laaj na xam-xam bu wor nga xam ndax loo xam du la gaañ te danga ciy jëriñu di ci jëriñu nga am ci nga am ci ak dëkkal am na loo xam ni daa am foo koy dëkkal mu ne foofa nga xam ni fii nga ko sancal nga xam ni fii nga ko sancal fi la dëkk taalibe bu ne nee na taalibe bu ne am na wàccuwaay ci xolam ci ngëmam mu dëkkal fa sëriñ bi nee na sëriñ bi daa am foko wara war a dëkkal. bayaw boo doon gis asaman si malaayika yi sax. bayaw boo doon gis asamaan si malaayika yi sax di dem ak a sa bët bii waratu koo toj ndax fa nga dëkkal sëriñ bi jàpp nga ni dëkkal googu yi moo la may nga mën di jàkk lawhul mahfuus. am na ñu am. nee na am na ñu ko am te nee na ndimbalal bi la. nekkal sëriñ bi. nee na nekkal sëriñ bi. nga war nag sëriñ bi ci boppam. nga war nag sëriñ bi ci boppam. ak njaboot bi. ak njaboot bi. foo fi mën a jublu. yoway ambassadeur bi. yoway ambassadeur bi. yoway responsable bi. yoway responsable bi. yoway jëwriñ bi. yaa fa war a taxawal sëriñ bi. yaa fa war a taxawal sëriñ bi. yaa fa war a nekkal sëriñ bi. yaa war a wane image buy tax. yaa war a wane image buy tax. ñu naw sa sëriñ. taalibe bu baax. taalibe bu baax. daañu ci nooyub sëriñ. kon nag sëriñ bi nee na ngalla na nu baax. te wuute. ñi nga xam ne. cëre leen tax a jóg. cëre leen tax a jóg. nee na gi cër yaa ngi fi. sëriñ bi nee na moom ay cër rek la. nee na moom tudd ko rek cër la. nee na boo ko tuddee rek am nga cër. bu ko defee ñëw fi nag tuddoo cër. cër tax laa jóg. ànd ak cër ba nga ànd ak cër ba ba xëy suba ba xëy suba car ba fàq car ba fàq ngay lang-langeeg moom ba mu wow ci àll bi ba mu wow ci àll bi mu jigi doonu mat loolu nee nii dara jaru sëriñ bi nee na nanu ak taalibe tax a jóg waay nee na wërsëg bu bu ñu fi tax a jublu nee na am na fi ba mu doy sëg ku mu fi tax a dik di nga ko am ba mu doy ndax sëriñ Tuubaa def na ko fi te du yi sëriñ bi nee na wax na ko ca way mu ni danaa fesal lépp luy ay xéewal du lii nu gis mbiri biir la nag moo waral nag ñu ngi jébbalu jaraaf ñu ngi raam di jébbalu kon loolu yi sëriñ bi nee na nanu ko ràññetle loolu nag موي سيرين توبا نينا ان رام علما او رام غلما او رام ظلما باخي لقاي نينا مو خم يو لو بك ديغو سيرين بي نينا دو في جيخ واي نغا ديم ak yoyu نينا موم باتينام ديلوسي كون كون نينا نون نينا اي تير تاخو مو bari jaata yow ñu ni la jëwriñ nga. bu subaa nekkoo jëwriñ. nga man nga fàttali nag ba ngay jébbalu jëwriñ taxul. nga fàttali ba ngay jébbalu yow jëwriñ taxul. gisatul la sax la sax. bokkatoo boo dee foo jëm. booy dund fan nga jëm. ba pare nekk ci àll bi di pamti pamti pamti xëy suba ba ngoon di kàcc di fen rek. ba pare nekk ci àll bi di pamti pamti xëy suba ba ngoon di kàcc rek. di fen rek di fen rek. lu ko jar. yow simple jëwriñ kese. mais sa taalibe moo ko ëpp doole nekkal taalibe nee na jëwriñ ji dañ la liggéeyloo cheikh gi dañ la liggéeyloo nga war a takk sa ndigil yi ni ci tool yi ni ci tool yi liggéey jël bakkan bi jël bakkan bi bañ a bëgg dara lu dul sëriñ bi sëriñ bi nee na loolu yi mooy yoon wi de sëriñ bi nee na nañu def très attention. doctrine tariixa murit bi ndax nee na doctrine tariixa murit bi nee na moom rek moo ko xam mu ne te nee na bu nu fàtte ni moom mii la Sëriñ Tuubaa doon tudd ciw làmmiñam nee na bu nu nee na bu nu fàtte ni. nee na moom mii mooy tax. sëñ Modou Lo Issa. yow man xiyam di tiituru. nee bii. la Serigne Touba fu mu ko ku ko fa nit. sa yaram alamaan la sa ne la. Tuubaa ko waxoon. Serigne Touba ko waxoon. ak mbind ma. nee na kàggu ma nga fee ak mbind ma. ma nga fee. ma nga fee ak na mu koy donnante. ba mu agsi ci ay loxo. leetar yaa ngi ci biir. kër. mbubu yaa ngi fi. kaala yaa ngi fi. kaala yaa ngi fi. sirru yaa ngi fi sirru yaa ngi fi. kaamil yaa ngi fi kaamil yaa ngi fi. lépp a ngi ci biir kër gi lépp a ngi ci biir kër gi. ndax benn barab boo mën a dem. ndax nee na benn barab boo mën a dem. barki démb ci koor gi. barki démb ci koor gi. ma ngay mbeng daa ànd ak mbokkum taalibe bi mu ko jox fulkul masxul. ma ngay mbeng daa ànd ak mbokkum taalibe mu ko jox fulkul masxul. ma ne ko ab taalibe mi koy doog a def de. mu ni ko ab taalibe day mi ngi koy doog a def de. mboolem fulk yi daje ci kaas bii. ni ko mboolem fulk yi daje ci kaas bii. doomu Serigne Touba ko jox doomu Serigne Touba ko jox. ba muy juróom-ñaar ba juróom-ñett. ba muy juróom-ñaar ba juróom-ñett. ci ay fulku ci ay fulku. loolu fan la am. nee na loolu yi fan la am. Bagdad rek. mbindum Serigne Touba ci loxoom. nee na mbindum Serigne Touba ci loxoom. Bopp Cerno. Bopp Cerno. Serigne Afe. Serigne Afe. Euh, euh, euh, Cheikh Modou Moustapha. Cheikh Modou Moustapha. Serigne Fallou. Serigne Fallou. Cheikh Massamba. Cheikh Massamba. man rek ko daje. nee na moom rek ko daje. ma wax xaadim aj mi. nee na mu wax xaadim aj mi. na ngeen ma wattu nag. mu ni ko na ngeen ma wattu nag. am na ñaari at ca ginnaaw. am na ñaari at ca ginnaaw. mu toog ak moom. nuy waxtaan. Mm, sëriñ bi ni ko na ngeen ma na ngeen ma wattu nag. mu ni ko ndax mbirum sëriñ Touba. mu ni ko ndax mbirum sëriñ Touba. dafa am loo xam ne ci seriñ bi. dafa am loo xam ne ci sëriñ bi. mu ni ko lenn a fi des. mu ni lenn rek des. mu ni moom mii rek moo ci des. mu ni te xam nañu ko. nee na bis bu nee na dund ko ndax nee na barab bii ñu dëju nee na gis ngeen fii nii fii nee na fii day lépp gi nee na lu baax rek a fi xaj nee na ku nam ma defaru addina ak alaaxira saw ñàkk nee na danga ko danga ko ko siital ci penc mi mu gërëm la nga defaru fi tiri posé tiri casé. fi tiri posé tiri casé. nga ni mu ni gis bu lay ñori. nee na da lay jaaxal sax nee na affaire yi day mel ni nee na réaction gént nee na doo sentir ni lii nii la mën a demee te fekk ni nee na ça vient du cœur ca xol la nga fa yéene woon la ko la Serigne Touba di ko buttil baatin bi ba mu xëy suba nee na dana ko weer ñëpp gis daal bu leen cër tax a jóg nee na ñun daal bu nu dolli pasteef sëriñ bi nee na nanu dolli pasteef ci liggéey bi ci liggéey bi bi alin te teg saabaam mooyaat seexi Bamba